Euh, nu mu tëddee sax Modou Fall ba tey ci li nga xamante ne moom moo jëm ci jàpp bi ñu jàpp euh, kile di euh, commissaire Keita ci jamono joo xamante ni itam Sénégal gis nañ ne week-end wi yëpp nag coow li bëri woon na itam ci li ñeel wàllub Cheikh Oumar Diagne ngir mu ñu jëlee ko foofee ca présidence ba mu nekk. waaw man nag gëm naa ni Cheikh kii commissaire Keita jàpp gi bett ko. ndax boo boo seetaanee bi ñu ko njëkkee convoqué bi ñu ko libéré ba muy dem wax na lu ni mel nee na euh, képp ku état rëbb alaa kulli xaal dina la jàpp moo tax sédd naa sama tur sama bisub cër kon mel na ni jàpp gi bettu ko euh, moom it comme ni ma koy waxee moo moo opté nekk ci millier bi doon communiquer saa su ne liñ koy toppee ak lu ci man di doon man dama gëm ni bëgg tëj gémmiñu nit ki la wala gémmiñu nit ñi nit ñi nag pour tëj seen gémmiñ ci ñaari mbir rek nga koy teg muy teel a teel a xuppe ci jàpp wala tëkku te ñaar yépp gis nañ ni nguur gu bees gi mu ngi ci mu ngi jàpp mu ngi tëkku lii nag fi mu lay yóbbu rek mooy eh, seen ëllëg ñoom lan lay doon ndax Macky Sall de loo ko mën di waxal dem na ba deuxième mandat mu doo a commencé jàpp ak a tëj premier mandat ba ci li ci topp lenn rek ci la focusoon naka lay def ba am résultat ci liñ ko fal wàññi dund bi def ay pont def BRT def euh, Dakar Dem Dikk et cetera ñii nag dañu tag dige bi bari lool wax yi bari lool ñu leen ni xaar bari lool lépp ñu tële ko mënuñ ci dara ñu ne leen rek lañ mën a def muy commencé jàpp nit ñi pour satisfaire ñenn ñi commencé jàpp nit ñooñu moo tax ñu jàpp ba ba jaxatee ci lañ jàppee imam Ndaw ci lañ jàppee Ahmed Suzanne kamara mhm. tey ci lañ jàpp euh, capitaine euh, commandant bii ñu téye tey euh, muy Kayta commissaire Kayta commissaire Kayta mhm. suba ci la jàpp keneen ak keneen ak keneen mhm. ancien de l'OCRTIS parce que tout simplement amuñu amuñu amuñu lu toll ne liñ diggoon askan wi pour jox leen ko te askan waa ngi leen di xaar am ci ñenn ñu bokk ci ñoom ñoo xamante ni si ñu jàpp nit néewal ko doole wala ñu jàpp nit def ko lu soxor mooy tax seen xool sedd ñu jëm a ñooñu. mais le premier ministre waxoon na ko euh, dootuñu bàyyi ci nit yi di wax lu leen neex te amuñu ci ay firnde est-ce que du loolu itam bokkul ci li tax euh, ñu daal di koy euh, teg yoxo li ma koy tontu mooy doot waxkat yet dootuñu bàyyeeti ci réew mi nit ki di def lu koy neex mel ni moom moom réew mi <laughs> saa bu ñu ko defee daañu ko wax wax loo amul firnde nag loolu moom nit ki la. nit ki taxaw wax lu mu amul firnde loolu moom la man dama jàpp ni nit ki jekk bay wax dina jël ay responsabilité ci li muy wax dina ko teg ci fu leer teg ko ci dalilu leer doog ko wax nit ki amul firnde di wax nag loolu moom la jàpp naa ne bu ñàkk firnde di am moom moo ñàkkoon firnde moom mi taxawoon tuumaal Mame Mbaye Niang ñu ne ko anam mu ne ma ngi amul bu ñàkk am firnde di am moom moo amuloon firnde bi mais ñi taxaw di wax ñi ci ëpp liñ lay wax dañ lay jox preuve yu leer naññ ne la mu ngi nii nga teg sa bët commissaire Keita nag jàpp gi ñu ko jàpp du moom lañ ci njëkk jàpp te duñ ko mujjee jàpp daañu jàpp ñeneen. Mm-hmm. lenn rek lañ fi installé. mooy mm-hmm. kenn du wax kenn du wane suñu cuune télé gi nekkee duñ ko wan kenn. ñi nga xamante ni si ñooy far ak ñoom tey wax saa su ne li leen di wax mooy ne lu ngeen di xaar ci jàpp gi lu ngeen di xaar nit ñi lu ngeen xaar ci tijji kaso yi lu ngeen di xaar ci dugal leen. Mm. ñooñu nañuy jéem a seral seen xol ndax jàpp nañu bu ñu seralee xolum ñooñu seral xolu réew mi te loolu mooy mbetteel ci ñoom 54 pour cent moo leen fal. quarante six pour cent ne leen óoluwuñ leen xam nga ñoom lañ moo waroon doon seen kemtalay kattan ñu ci combat mu doon seen yittey bopp ba duñ tala nelaw waxantuma la di tal nit ñi seen yittey bopp moo waroon doon fexe ba quarante six pour cent yéen leen wóoluwuñ leen ñu gàccal leen fexe ba cinquante quatre pour cent yi nga xamante ni si ñoo leen wóolu ñu siggil leen waaye faatu suba gu ñu xëyee quarante six pour cent yi ñu ngi gën a siggi ci kaw cinquante quatre pour cent yi xamul tax dañ li leen woon yéen a ngi fal ñu mënul yéen a ngi fal ñu xamul yéen a ngi fal ay dictature yéen a ngi fal ay digeekat yéen a ngi fal ay waxkat mm-hmm. ñu ñëw cinq yooyu yëpp ñu leen waxoon su bëgguñ xëyee ci la ñuy nekk cinquante quatre pour cent yi di gën a sëgg quarante six yi leen waxoon loolu di gën a siggi léegi nag ñoom pour ñu satisfaire ñenn ci cinquante quatre yi il faut ñu wàññi quarante six yi mm. waaye dañoo xamul ni équipe football la tant que yaa ngi wàññi ci quarante six yi jàpp ni saa boo ci jàppee benn dugal wàññeeku 54 yi nga yor saa boo jàppee benn dugal kaso 20 xàddi nañ fee ci njàkkalaa laa gëmati ñëw bokk ci 46 yi. Hmm. kon pertement mi ngi am ci ñoom te yëguñu ko moo tax ma ne la. Hmm. Hmm. Macky sàll moo leen di ëpp ak guj ndax Macky daa ñëwoon di liggéey ba yàgg xel mi dem ci ne moom kat léegi euh, moo seefe lépp. moo seefe ñëpp. très bien mooy borom lépp moo xam lépp. yematu ca muy jaay doole di jàpp di tëj nit ñi meree ko jaay doole xam nga Macky Sall fóolu wuñ ko pour dafa liggéeyut. folli ko pour dafa tegul woon réew mi ci kano yu wóor folli wuñ ko ci pour dafa xamul woon état dañ ko folli ci da dëkke jaay doole nit ñi say nit nekk di jëfe maa tey ci kanamu nit ñi moom nag comme moo liggéey ñu folli ko ci loolu sàkk sàkkantom laa ki nga xam ne bi mu ñëwee ba tey demul céng dikkul mbay laar tukki na juróom-ñeenti tukki ñu mbuusu xorom sarica bëgg a jël suñu sarica def ko ku wax mu jël la ma daaneel bëgg a jël suñu sérité te fee ko ku wax mu jël la yóbbu sa su boobaa xam nga lu mu koy jural mm. saa boo wàññee benn ci quarante ci quarante six pour cent yi vingt yu bokkoon ci cinquante quatre pour cent yi jóge nañ fa xaat di ñëw fekk si quarante six pour cent yi kon pertement lay doon moo tax ma ne seen ëllëg. Mhm. moo mat a waxtaanee seen ëllëg laa yërëm ñoom. Euh, très bien euh, am na solo euh, Ndeye Fatou ci li ñeel wàllub commissaire Keita comme ni ñu ko waxee mu mel ni daal di nañu ko def mandat de dépôt jëm ci wàllum nag yóbbu li leen di dossier bi instruction daal di ubbi information judiciaire ci wàllu woowee nga xamante ne ne moom la koy toppee di diffusion de fausses nouvelles ci wet itam ñu ngay gis ni am na ñeneen ñu taxaw temm ne faw ñu tekki ndombal tànk kile di Cheikh Oumar Diagne waaw boo ko tegee ci balance moom vraiment da ngay gis ne deux poids deux mesures moo am euh, Fatima at yi jàll yëpp dañ doon toog fii sur ces mêmes di wax réew mi dafa am une justice à double vitesse ñu ne fii kumba am ndey kumba amul ndey moo fi am dóor doom làq doom te dafa mel dafay bëgg ak confirmer wu parce que commissaire Keita bu fekkee ne lii ñu koy toppee mooy live ba mu defoon ni dafa am benn coow bu am diggante premier ministre ak président euh, am lu si expliqué loolu jar naa tëj nit kaso alors que pour régler l'affaire il fallait juste un petit communiqué de démenti pour diir que y a propos supposant un quelconque malentendu entre le président et le premier ministre dénoué de tout fondement loolu loolu réglé woon na la question mais du jël nit yóbbu kaso pour man bu dee loolu kese la ah loolu jël jarul yóbbu kaso xanaa peut-être le commissaire Keïta a dérangé <laughs> et commencé à devenir encombrant man loolu laa mën a comprendre derrière cette arrestation du commissaire Cheikhna kayta parce que jamono yee passé defoon naa feeg moom émission seen jotaay te lan moo ko waraloon mooy dañ fi tegoon un comité moom ak moom Mamadou Abdoulaye gisee ak un trois une troisième personne ne dañoo dem conseil constitutionnel déposer fa une lettre pour wax conseil na seet la posture du président ci dirige ci ni muy diriger ak ci décision yi est-ce que c'est lui qui prend les dirige les décisions ou pas ba demoon sax demander une autorisation de marché mais malheureusement ñu gàntaloon leen ko loolu jàll bi fi amee euh, coowal Cheikh Oumar Diagne amee moom mu bokk parce que j'ai suivi le live de Sarr le sénégalais d'Allemagne hier ñu expliqué ne moom commissaire Keita dafa àndoon ak ñu doon demandé marche Massalikul Jinaan vendredi dernier gra gannaaw bi nga xamee ne dañu bëggoon a ñaawlu waxi Cheikh Oumar Diagne mu bokkoon ci comité d'organisation bi et bi ñu defee même demande marché bi moom commissaire moom lañ demoon di ko entendre à la police comme boo defee demande déclarant yi day am euh, kuñ ci tànn wala ñu ciy tànn déglu leen pour laaj leen